foofu yaakaar naa ni euh, wàllu mbay dañuy wax toujours ni mbay dafa yaatu parce que du mbay euh, agriculture rek mais élevage environnement ñun ñëpp ci biir la ñu nekk te yaakaar naa ni loolu aussi état bi euh, bàyyi na ci xel bu baax a baax moo tax tey waa waa GIPS waaro waroon ñu fii ñu dajeek ñoom pour waxtaan xool yan mesure lañ jël au niveau de du ministère de l' agriculture essentiellement pour vraiment am euh, mbay boo xam ne dafa sell maanaam nu ñu koy dooleele ci fànn boobu euh, may wax rek ni euh, est vrai que baax na ñuy am mbay boo xam ni dafay dafay produire mais produire aussi dans la durabilité maanaam ci mu nekk ci fànn bu sell waaw ci fànn boobu yaakaar naa ne am nay jéego yoo xam ministère de l' agriculture def na ko ci li may wax toujours rek mooy boo jëlee de programmes multiplication boo xam ne dañuy indi ay jiw yoo xam ne dañoo mucc ayib loolu day wane effort yi nga xam def nañ ko pour maanaam euh, ci am ci wàllu protection de l'environnement nu ñu ciy jàppee beneen fànn bi aussi mooy ci wàllu maanaam tos bi maanaam euh, ñi fii au niveau de la région de Thiès en rapport avec certains euh, partenaires dañuy euh, tàggat maanaam waxtaan ak euh, kuréel yi nga xam ni ñooy kuréelu baykat yi pour gën leen a maanaam ñaax gën leen a maanaam tàggat ci wàllu maanaam tos bi ni ñu koy jëriñoo ci seen tool yi donc yaakaar naa ni foofu daal wax dëgg yàlla fii ci région de Thiès am na ci ay organisation am ñu ngi ci yëngatu bu baax a baax pour vraiment jàppale jàppale ñu ci wàllu ci fànn boobu. ci wàllu campagne jox baykat yi nga ban ci ban point waaw ci foofu yaakaar naa ne dañuy rafetlu le fait que ñun fii de région de Thiès vraiment en rapport ak monsieur le gouverneur euh, le 31 mai bi passé lañu def suñu CRD pour waajal maanaam campagne bi euh, ci foofu yaakaar naa ne bi ñu fi may wax ak ñii deen temba àjjuma bu jot dañuy def situation bi envoyé ko waa Dakar mais li may wax rek mooy boo jëlee département bu ne département de Tivaouane lépp li nga xam waroon na fa dem ci jiw gerte dem na ci commission yi actuellement mooy 100 pour cent de mise en place boo demee département boo mel ni Mbour foofu aussi am li ci des li ko manqué mu nekk 100 pour cent bëreetul euh, euh, la même euh, loolu aussi lañu am ci département de Thiès foofu rek dafa am loo xam ne aussi dafa am mesure boo xam dañ ko jël parce que am na benn wala ñaari yoo xam ne jot nañu seen notification ca ca teel mais ñoom ñoo tax ba amaguñu cent pour cent de mise en place mais ñun décision bi ñu jël mooy dañuy nangu maanaam agrément bi ñu leen joxoon pour jox ko ñeneen ñi nga xam ne ñooy soog donc naa biir semaine bi di jeex 100 pour cent de en place mun nañ ko am ci ci région de Thiès wala pour jiwu yi la. dañ ko mën waaw xëy na nag moom xëy na dañoo am ay gàllankoor parce que aussi yaakaar naa ni foofu état bi bàyyi na ci xel bu baax a baax euh, xëy na ñoom dañoo sóoroon loo xam ni euh, attanuñ ko waa ci fànn boobu yaakaar naa ni ñun aussi dañoo dañoo taxaw tembe pour que vraiment ci semaine bi ñu am 100 pour cent de mise en place ci wàllu jiw yi donc foofu yaakaar naa ni ñaari opérateurs yooyu dinañ jël nañ décision pour remplacer leen donc ñuy rafetlu encore une fois le fait que vraiment mise en place yi nga xam waroon nañ ko def ci wàllu gerte gi par exemple ñi waroon yóbbu yëpp pratiquement yóbbu nañ loolu defe naa dañ koy rafetlu euh, yeneen li ñuy rafetlu aussi mooy boo jëlee jiw bu mel ni mboq par exemple euh, ren ak campagne yi weesu lépp lu ñu war a yóbbu ci wàllu jiw ci fànn boobu ay ay semence certifiée lay doon maanaam ay jiw yu mucc ayib donc loolu aussi dafa naa dafa effort boo xam ne état bi daf koy def pour gën a gën a ñaax ñi nga xam dañoo war programme multiplication de semence donc foofu dañ ciy rafetlu encore une fois bu jëmee ci wàllu engrais bi aussi foofu aussi dafa pàcc boo xam ne am na solo yaakaar naa ni képp koo xam ne fournisseur nga nekkoon ci war a ci campagne bi jot nga sa notification à temps te yaakaar naa ni fii ak diir xëy na ñoom dinañu dem yóbbu maanaam seen engrais ñu war a yóbbu ci commission yi waaw waaw euh, actuellement ñebe bi war nañoo distribuer lu toll ci 400 tonnes waaw waaw cent tonnes ci ñetti département yi euh, mise en place bi commencé na xëy na euh, fii ak ay fan xëy na dinañ ko war a euh, def ci ay jéego pour mën ko boucler balaa ndoxalaal suuf loolu mooy sunu vraiment mëbët waa donc fànn boobu ci ci ci ci ci ci wàllu ñebe bi la bon boo jëlee gerte gi pratiquement 2500 tonnes la ñu waroon yóbbu au niveau des différentes commissions au niveau des trois départements loolu aussi vraiment ñu ngi koy rafetlu encore une fois donc taux mise en place pratiquement jot na 100 pour cent au niveau de Mhm, bon man maa ngi nekk ci ADT Gerte. ADT Gerte bon ONG la bu nekk dans la région de Thiès. bon di yëngu ci xeex eh, li ñuy wax maanaam ndóol en même temps aussi di xeex pour que ndox mi fi nga xamante ni fa lay tawe mu ngi fa bon parce que li nga xamante ni moom la ñu constaté moo di ni eh, ci biir. plateau bi par exemple yenn saa yi nga gis taw boo xamante ni day jógee day ñëw biir Thiès te dafay xonq loolu li ko wurndel moo di ni ndox mi fa mu tawee ngi so fa dafay wal wal googu nag la ñuy xeex bëgg ba fi nga xamante ni fii fa lay tawee mu ngi fa lan moo ko waral ndaxte dañoo seetlu ni dëkk yi nga gis yépp fi mu ne nii da ngay mën ngaa bay lu yaate doo am dara te bu njëkk amul woon lan moo ko def mooy àll bi dafa toj àll bi kan moo ko toj ñun ñoo ko toj kenn toju ko doomu aadamaa ko toj ndaxte yàlla dafa defaroon yépp bàyyi ñun ñu ñëw di dagg àll bi di jaay matt yi di ko indi ci biir ville di ko def lu ne loolu nag tey mooy jàngoro ji nga xamante ni bii feebar bi nga xamante ni moo juy jàngoro ji ñu nekkee fi mu ne nii nit ki tey boo demee kër goo gis ñaari nit a fa nekkoon ñoo ko sos kër goo gis fi mu ne nii am na fukki nit mais fukki nit ñoo il faut ñu am fu ñu dëkk mais fi mu ne nii mënu ci am fu ñu dëkk parce que yàlla ji fi mu ne nii li muy taw boo ko seetloo moo ëpp mais li muy taw day wal di dem liy wal di dem du infiltré wu moo tax fi mu ne nii mënoo bay am dara xale yi dañuy dem parce que gisuñu lu ñu liggéey bu xale ñëwee nekk ci biir te kër gi nekkoon am am ay mu ma nekkoon fa bay amatul fu mu bay day génn dem yoonam loolu yëpp nag ñun dañoo jóg di ko xeex naka lañ koy xeexee di teg ay cordon maanaam ay buum yi xeer yoo xamante ni fa lañ koy teg di ko teg ba bu ndaw ndox mi ñëwee du ko mën a jàll mais du ko tëyit waaye dina fexe ba suuf si man cee naan li nga xamante ni moom la war a naan bon loolu bu ko dee def te parce que cordon du benn yoon rek nga koy def parce que bu fekkee ne pant bi dafa foor day jige su fekkee ne pant bi ci boppam dafa faible day xaw a gën a jige su fekkee ne dafa tàlli day gën a sori pourquoi parce que tàlli boobu day tax ba ñi nga xamante ni ñu ngi bay du ñu am benn problème impact yi li ko indi mooy teen yi fi mu ne nii boo ci gis ndox mi fi mu ne nii am na presque hauteur bërki démb rek daf nañ son am na hauteur boo xam mat na ñaar fukki mètre yoo xamante répp dox la ci toon boo xamante ni bi fanweeri mètre la gis nañ ni aussi suuf si nga xamante ni bii fi mu ne nii daana daw yëpp dawatul parce que ñu mu ngi toog tool yi nga xamante ni aussi dañ ko bàyyi woon yëpp fi mu ne nii ñu ngi ñu ngi koy jël di ko bay c'est que nag bay boobu ba mënoo koo defi tànk defoo ci fumier ndaxte dafa xelli suuf si xelli pour nga mën ko mayaat doole il faut nga def ci fumier fumier boobu nag moo indi ñoom ñu koy récupérer waat di ko bay gàcce ngaalaama parce que bon GIPSWAR aussi ñun ñu ngi liggéey moom ci loolu parce que dañ ñu boole ñoom ñun en tant que technicien ñu leen def former leen seen peuple seen paysan yi pour que ñu mën a def liggéey bi liggéey bi du dara parce que liggéey bi ñu ngi koy jëlee ci li nga xamante ne moom la dëkk bi di dund. bi nag toujours moom la ñuy wax parce que état bi. su fekkee ni yow yaa moom sa dëkk ay gan parce que ñun ñu financer financé ñëpp ay bailleur la yoo xam ñu ngi jóge bitim réew muy Nations Unies muy PMFM di aussi eh, Belgique eh, maanaam Brotelique Delen ak eh, ak nu mu tuddati UNICEF maanaam allemand yi Belgique Belgique ak allemand yi bon mais financement boobu doyul parce que doyul ñooñu dañuy dimbali. ñun ñu ngi ñuy dimbali mais état bi jëm boppam moom moo ci war a def moo tax ma lancé léegi message à travers les élus yi fi nekk ni leen nañu fexe ba at mu jot nañu dugal benn ligne ci euh, crédit yi au moins ñu dugal ko ci au niveau de leur maire yi pour mu environnement yu man koo supporter parce que nit ki bu lay dimbali au moins na xam ne yow mi muy dimbali yaa ngi jéem dara mais see jéemulee dara bu ëllëgee ñoom it dañ fay toog une période dem seen yoon donc ñu état bi na ci jàpp les maire nañ ci jàpp les conseillers nañ ci jàpp parce que Sénégal mënul développer sans mbay lu ñu bëgg-bëgg développer Sénégal sans mbay mënul ne parce que boo demee ci réew yi nga xamante ne sont des pays développés ñëpp ña fa am xaalis am fa am am mooy ñan mooy ñi nga xamante ne ñu ngi bay mais fonctionnaire la mu am munu koo jariñ dara donc ndox bu fekkee ne am na suuf si baax xale yi dootuñu demati. ñun ñu ngi favoriser aussi di leen defal ci biir projet yi di leen defal ay fonds de crédit fonds de crédit yooyu xaalis la bu ñu leen di may parce que fem ñoo ko def jigéen ñi di ci liggéey jigéen ñi bu ñuy def le petit commerce di am lu ñu yëngatu seen biir di mën a fayal seen doom yi dootuñu demati fenn te loolu avancement la ci dëkk day dàq ndool te projet buñ ci jël suñ ci dawalee ñaari at gis ni dëkk bi amul changement dañ naa leen carrément projet boobu jarul sax muy dem wasalaam xawaar bi Cheikh Anta ku xam Gibsoir xam na ñun ci wàllu jëmbatum garab yemuñu rek ci jëmbat dañuy fexe produire en partenariat avec les eaux et forêts chaque année minimum 7000 à 10 000 plants Gibsoir dina ko produire buñ ko produire ba pare gunge groupement de femme yi jox leen ko gunge leen ci yenn euh, espace communautaire yi wala ci biir kër yi grande concession yi pour ñu mën ko jëmbat def suivi bi ci war yii ay garabu meññeef la yii pour ker la ndax euh, naatal dëkk yi yii yeneen garab yoo xam ne di nga ci am koom loolu depuis des années ñi ngi koy def euh, ren yaakaar naa ne boo jegee technicien eaux et forêts di la ne ne pépinière 2016 gypsoir 7000 plants la li tax ñuy dugg ci production bi pour wane ne jëmbat bi aussi doo dem rek ne Eaux Forêts may ma garab da nga war a participer à l'effort national en produisant les plans te ci production plan boobu dañu ci lëkkaloo ak les techniciens des Eaux et Forêts ñu formel ñu ay jigéen ñoo xam ne léegi c'est de spécialistes de di dem ci gox-goxaan yi di yeete di gunge yeneen jigéen yi ndax kenn ku ci ne mën nga am sa pépinière sa biir kër bu jëmbat garab jotee nga daal di koy jëmbat toppatoo ko suuxat ko pour au moins euh, maral boobu ñu wàññi ko ñun nag neewuñu ne dañuy def yëpp mais gis nañu ne depuis deux ans ak collaboration ADTGET ak ndimbalu FEM wax dëgg yàlla euh, ñi ngi di fexe ñu nit ñu ñuy participer ci xeex ci dawale bi parce que ndox mi dina ñëw ak doole doole boo xam ne suuf sépp lay mar bu ko maree foofu jigéen ñi du ñu mën a bey te ku beyul ne xiif donc euh, projet boobu macha allah yàlla may nañ ci ndam lu kawe suñu njort sax te ci gox ba ak gox yi ko wër seede nañu ne euh, travaux restauration yi fexe nañu ba duyaat napp bi ñi ngi koy yëg ci teen yi ak ci tool yi nga xame ne jege na la site du projet